Alioune Seye 2. Alioune Seye numéro 2 moo dàq bëre ci làmb ji. waaw moo ma dàqal bëre géej waa la dëkk moo dàq bëre Alioune Seye maa ngi segg tamit moo dàq bëre. non kenn nga may jox. Alioune Seye 2. mooy moo dàq bëre ci làmb ji. moo dàq bëre ci làmb ji. mooy kilifa gi waaw. Euh, question première question bi mooy làmb ji wërngal këpp ban mbër mooy sa idole kan mooy sa idole ci làmb. Balla Gaye 2 suñu. Balla Gaye 2 mooy sa idole papa mbëri waaw. papa la papa mbëri. Balla Gaye 2 waaw. parce hmm. que dañuy dégg Modou Lô di gaarawaal di ko tooñ moom lekk na ko fexee dem bëree ji waaw moo gën muy tooñ Balla Gaye quoi. mais Balla mooy sa idole. mooy sama idole si lépp. bi man ne la lamb ji kan moo fi dàq bëri nga ne Alioune Seye. waaw bi lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq xeex. ban mbër moo dàq xeex. ah Maguette Seck moo ma dàqal xeex boo ñaa deux. boo ñaa deux bu école de lutte Balla Gaye moo dàq xeex ci lamb. moo dàq xeex ci lamb ji. lamb ji wërngal këpp. waaw lépp parce que waaw. ragal fu nga nit mom fu nga dëkk mom boko ragalé rek damal xol sa bop damal xam ne yow do dara. question suivante bi lamb ji wërngal kep ban mbeur mo fi gëna ñëmé entraînement. do ko la Igri walu man Igri balagay igiri Igri lépp wante de guerre moy numéro one. Lac de guerre numéro 2 waaw Lac de guerre numéro 2 mo gëna ñëmé entraînement ci lamb ji. waaw moy numéro one. waaw gëm sama gëm ak luma ko gis parce que man dama dem Igri walu dafa daj lo xam man musuma ko daj mburu lu mu daj ci tal ma ngoy daj kon damay xam kon ko mo gëna top te ñewul day wax tey la ñu liggéey série bi euh, euh, Lac de Guiers moo gën a ñeme entraînement ci làmb ba mu daj gisoo mbër bu ko gën a ñeme entraînement non non gisuma ko yow yaa ngi seetaan vidéo nu mu def ak ñaabu ndaw nu mu def ak soxor ak soxor jàpp booy di leen bugal bugal yi métti di leen teg entraînement yu métti te booy mu teg lu métti yëpp booy yëpp am dam ñëpp a dem daan ñëpp ñëpp ñëpp dem daan ñëpp noonu la demee nag moo dàq bëree ok waaw waaw sa sa zone sa zone naaj na hmm? noonu la fa demee bàyyi ba fin bi nga sant gërëm bàyyi ba fin bi nga sant gërëm ñoo ngi ci question réponse lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi ëpp fit déggo la man mbër yëpp fit lu ma jox mbëru géejawaay kenn nga may jox da ma naan diw moo ëpp fit ci làmb ji Balla Gaye 2 moo ëpp fit ci lamb Balla Gaye lamb ji waaw lamb ji wërngal këpp question bi lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq fecc ban mbër moo fi dàq fecc Balla Gaye bu tuusee mu neex benn tuus ak la génne ñëpp jël ko waaw noonu la demee noonu la demee benn benn tuus mu ngi toj tiktok bi kon jeex na kon kooku kay mooy moo loolu tuus na kenn jëlu ko. boo ñaa mi mu bëreel tuus na kenn ko. Balla Gaye fan la bëree kay tuus benn tuus bu gàtt rek. tiktok jël ko kon kay yow xam nangu lu may wax. parce que boo seetaanee tiktok baaxu Balla Gaye bi ngay dégg. Balla Gaye 2 moo dàq fecc ci làmb ji. waaw question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër. mo fi gëna yaru lamb ji ngeul këpp lamb ji kaw ba suuf ban mbër mo fi gëna yaru man ya gëna yaru ci lamb ji gëna yaru ci lamb ji sore yow da nga yaru ni ma gëna yaru ci lamb yaani suma duggé ci bir géew duma yaru gëna deretu gëna moy daw wa waaw yow eh boy boy boy à yow ban mbër mo fi gëna yaru apart man na rek Alioune Seye Alioune Seye numéro 2 mom nga koy jox mo gëna gën ci mbër yi ko gëna yaru ci lamb ji kooku mosoo ko dégg ci ñaax feere ci lamb wala ñu classe ci lamb amul Alioune Seye moo gën a Alioune Seye man nekk moon igiri waalo sama trois combat te damay ñëw congé ma barki alxuraanu karim moo tax sama combat ba ma daanee Modou Mbaye da doon xaw a jaay affaire ginnaaw raay ba ma ko daanee si moom laa jugal parce que moom wax bëree léegi moo ma coaché na ma defal léegi léegi lii moo tax ma ma daane ma jubal si moom dama ko jox moo gën a yaru ci làmb moo gën a yaru si la yow xam nga lu ma la wax Alioune Seye xam nga. Eh, eh, bu ma jaxasee mbëri de nga naan ma xam nga lu ma la lu ma ci xam xaw ma ci dara de xaw ma ci dara mu naan ma. yéen ay journaliste damay laaj rek yaay toll nga naan ma xam nga li ma la benn affaire yéen ay journaliste yéen yéen a ngi dugg fu ne xam nga ne Alioune Seye 2 kooku sëñ Fallou la nekku taalibeem ba raw moom parce que boo nekkee taalibe sëñ Fallou rek yow jeex na yow doo duñ la dégg si yéen yi. moo gën a yaru ci làmb moo gën a léegi nag question réponse yi naa li ma posé lépp géejawaay nga ma génneel jox nga ma Balla Gaye Alioune Seye 2 jox nga ma euh, euh, kii kii Lac de Guiers numéro de question ji ma la laaj yëpp géejawaay nga ma tontu nest question bi ma lay laaj tamit fexeel ba génneel ma ko géejawaay dégg nga làmb ji wërngal këpp laaj naa la kan moo fi gën a yaru nga ne ma Alioune Seye 2 làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a réew mbër bi gën a réew ci làmb ji laa bëgg a xam kan la rëg-rëg moom mooy dépassé rëg-rëg moo gën a réew ci làmb ji ah, parce mooy dépassé waa géejawaay léegi lu tax ma laaj la question yëpp xoolal xoolal Ndiaye xoolal Ndiaye nee na xool non xoolal sa waay nee na la ci bien fait. Reug Reug daa am lu mu wax ci làmb moog Sa Thiès te ñëwagul. lu mu wax muy nekk di wax ay waxu ñàkk fayda di dépassé. Reug Reug dafa dafa leen bëgg a wan ne ba su ma ba bàyyi ko. waa léegi Sa ko ne kirtimtee ba bàyyi ko loolu la leen di wan noonu. si kattanu yàlla suñu borom Sa Thiès bu ko jàppee ba bàyyi ko. Hmm. gaalam bi moom da koy lem. da koy def Sa Thiès lan la koy def lan la koy def. Sa Thiès da koy duma dumay ba pare gaalam bi da koy dem toggee mat. gi mi ngi fii mu teg fii fii fii tout fii fii la ko teg ci ci tefes dellu géej mu ngi tagu noonu nag ngi fii tout près ci tefes gi fu la ko teg may déglu xam nga ma bi lu des bëriwul dañ koy daan mu jël gaal gi taañ ko def ko mat man maa la wax parce que bu nekkee fii bu ko naree yéenu fii gars yi géej waa dañoo am kersa quoi mën nañu ko jàppal yéenu ko déedéet gaal gi da koo teg jël saa kees yëpp ko ci gaal euh, saa kees léegi dugg si gaal gi naa dig ah, waaw léegi gaal gi dig na waaw rek mi ngay wax noonu rek day xaar naa mu lu waral may xaar mooy gaal googu ngay wax Sa Thiès koy jàpp dóor ko dóor yi metti daan ko si kàttanu yàlla. Sa Thiès day jàpp rek rek dóor ko dóor yu metti daan ko. daan ko ba pare boole koog gaal gi boole koog ay mool yu mu àndal dem géej maare. vaar am na de vaar léegi dafa xew de. day maare ji day maare ji day maare ji ñun ay alalu sëriñ bi lan. kon daal na ma dimbali. ma booy booy question bi dama la koy posé waat sans réponse balaa jiit dama ne lamb ji ban mbër moo fi gën a réew laa wax. rëg-rëg rëg-rëg ñëw Seras kay bu dee foofu mën na Seras interview bi rëg-rëg yaa gën a réew si mbër yi. lamb ji wër ngeen këpp. waaw moo gën a réew si mbër yi. dina leen gën a mere nag. waaw dégg lu mu gën a mere waaye yi bés moom bëkkanteeg seen mbër. Ah nga mu ngi doog a ko saa kee hmm. mu xam dina bëre ba bëri fu dara nekkul. dina bëri bu waaw saa kees sa kaw sa kanam. li ma ci jaaxal mooy mosul daanu loolu moo ma ci jaaxal. waaw rek mus na daanu Clinton moo ko njëkk a daanu ñu def ko verdict. Hmm, waaw Clinton. fa woon maa ngi fa woon terrain terrain municipal bu parcelle terrain église. ñun loolu dégg lañ man kay maa ngi fa woon maa ngi woon toog tee sama pare ah. mi woon fi écurie fi la nekkoon léegi mi ngi mi ngi mi ngi fële mi ngi eh, léegi fa la féete mais instant boobu écurie wàllu fi la nekkoon combat bi kay terrain église la woon parcelle maa fekkee moom lañ jox Clinton lañ jox victoire rëg rëg jooy fa jooy yu métti mais après dafa dugal recours ñu casser verdict bi def ko sans verdict sans verdict la casser nañ ko astafurlah nee na waa waa waa astafurlah moom waaw moom moom wax ni casser nañ verdict bi loolu la wax de man de gisuma verdict bi si kàttanu yàlla xam nga papam boobu nu mu tuddee sax bale kii moo ma bàyyi seetu beeg yooyu ñëw moom xam lu tax muy foofu dafa bànneex. mi ngi bronzé nag actuellement nii maa ngi koy gis nii ay vidéo nii yu nice mu ànd benn xale bu jigéen bu nice kay di di happiness. waaw léegi happiness di dox ci plage yeeg yooyu. xam nga moom waa Caare Gueye dañoo muusu. yow ku ànd ak ànd benn booy bu ne di xàppi di dem na. mais jabaram la. waaw doo ma déglu xam ne ne moom combat bu muy jëm defet la ci jël moo tax faa mu xàppi fii seen xolam parce que boo jugee si defet boo gisee sa rakk sax yow da nga bëgg a bule da nga bëgg a wax ne da nga bëgg a wax ne day happy avant combat bi parce que après combat bi du happy. te incha allah non lay demee bu xàppiwul nii jour combat bu ñëwee bañ ko daane bu gisee jaar da koy bëgg a bulee. kon yow da nga bëgg a wax ne Sa Thiès day wàccee rëg-rëg. si kattanu yàlla si morom sa rëg-rëg sa ñaawaay boobu yaa gën ñaaw si mbëri Sa Thiès da daan. <laughs> merci l'histoire retiendra ba ba bés ba question suivante bi la rak ji damay génn tur ci làmb ji ah damay génn ci làmb ji dugg sa vie privée lan nga gën bañ ku la ko def. loo xam ne ku la ko def jot sa jikko lan la. non man moom pour nit def ma dara jot sama jikko moom yombul. nit koo gis am na lu muy bañ. man nit pour mu jot sama jikko yombul man mbër moo may mer waaw saaka mooy saaka rek dépassé di saaga doomu aadama respect la waaw saaga moom ñàkk respect la saaga ñàkk respect la yow xale bu ndox sax boo ko saaga rek gis boobam waaw ndax gunaa cat ba cat moom nit musuma ne Elimane dafa yebaat wala dafa réew waaw man man su ma xewlee booy ndaw yi sax booy ay taalibe waroon nañ jàng yeneen booy waroon nañ tëdd dem jàng def leneen. question suivante bi rakk ji euh, ban jikko nga gën a bëgg ci góor góor yàlla ban jikko nga ci gën a bëgg. góor yàlla moom lu ma gën a bëgg ci moom mooy góor yàlla boo xam ne respecté nañ ay waajuram góor yàlla boo xam ne moom tamit day gëm lu mu doon dem liggéey ñàkk am ñëw teral waajuram jox nit ñi respect. bu fekke sa nga am problème mu téeméer mu jollo kenn du yëg ko koy gor yalla deug man ñooñu laa bëgg te ñooñoo fi nek question suivante bi ban jikko nga gëna bëgg ci jigen non jigen mom da nga am respect tok sa watu yaay lo rek lo moy P numéro 1 gounas fi gis nga suñu su waron jigen ñu gënde de ku nek dem na tok gounas dañu gëm seen bop dañu gëm luñ doon xalé mu ndaw sax boko ko respecté wul faale wu la boo ko rombee billahi wallahu taala nga ko jox ay milliards du la li jëndi. question suivante bi. lan moy sa coob lan moy sa plat préféré. non plat préféré man mom bañuma dara. luma jot bañuma dara ak lan moy sa préféré c'est pas la même chose. suppu kanje doomu soose la laaka. maa fekk suppu kanje moy sa plat préféré. suppu kanje. suppu kanje moy sa préféré. moy préféré mooy. boo am suppu kanje moo la ko gënal. boo tegoon fi ceebu ginaar teg fi suppu kanje suppu kanje mi laa juwal waaw oh. ah, noonu la demee nag waaw. kon daal fan ci supporter yi képp ko invité Soores préparé ko. non man mom fi kenn du invité kër guma neex la du añ

gisoon mu nduroog Thiat Seck kii mooy Thiat Seck kan mooy sa waykat kan mooy sa waykat jox ma kenn non de Thiat mooy sa waykat waaw mooy sa waykat Sénégal wërngal këpp Thiat Seck mooy sa waykat waaw mooy sa waykat waaw question suivante bi rakk ji ba tey ñoo ci question réponse ah euh, mbër toogal waay mbër euh, nan ngay dundee ak say soppe ñi la bëgg yéen la nga am ndam ci àdduna nan dundee ak ñoom waaw devant tout moom damay wax euh, Gounass première défaite bu ma njëkk am barki alxuraanu karim si laa a xam ni man défaite waru ma wax waa am na vidéo yoo xam yi ñoo génne seen xaalis barki Mouhamed fii daa fee jël ba fii billaahi wallaahi noonu ba ma ñibbisee jooy bu ma jooy taxituma ko ay grand biraatam maa ngi koy tamit billaahi wallaahi dañuy firee sama combat su ma taxoon wax ko fii nii dañ booy waxul dëgg ànd ak ñii xam nañ kii tamit xam na si bu baax kii du fenn ànd kii tamit dañ si sonn Fallou mu ngi sañ Fallou tamit Baba Ndiaye gars yëpp dañ si sonn su ma leen limee du fi jugee dara tamit soo fa duggee billaahi wallaahi sa combat ñii du ma bàyyi fenn saako yàpp la ñuy di teg ne saa mi si loxoom lay jaar laaj si yàlla na ko yàlla yërëm moom moo doon dugg tamit di laaj gars yi dama place xarit ruube place xarit na ko yow Ilmaan sa mbër la sa jigéenam nga da joxe gars yi indi saaku yàpp bu buñ koy ndee booy ñoom dañ naan noono lii mënu nekk kon man tey jii man gunaas du ma def loo xam ne dañ may xeeb du ma fi dépassé xale du ma fi dépassé mag lu waaye xeloo ma fay dem parce que gis naa ne man duñ ma jàppee question suivante bi nan ngay dundee ak say noon ñi nga xam ne bëgguñu nga am ndam bëgguñu nga avancé non man moom sama noon pour man sax amul nit ki lu la may soppee da lay jural noonu xam nga la moo tax man sama noonu parce que man tout temps damay doxee loo xam ne man samay soppe dañuy kontaan man loolu laa gëm léegi sa noonu na bu gisee yow mu xam ne ñaan ñii ñoo bokk ndey ak baay su ma ko kii su ma saagoon sax dama naa ko ñoo far noonu boobu est dina am fu mu dugg kii te su ma saagoon moom moom ñi xiiroon noon bu ñëwee waaye kii da laa yab kii day jaafere saar wala day ñoddi lii kii day gonflé woon wante kii su ma saagoon dama naa ko ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kii su ma dóoree ma ne ko grand sama grand noonu boobu dina am après day tok di métti rek noonu non bu noonu bu demee tour ci yow dara day tourné nek ci soppe te boba mo lay gëna bëgg. question suivante bi équipe nationale du Sénégal championne d'Afrique limal ma ci 5 joueurs. 5 joueurs. équipe nationale du Sénégal championne d'Afrique limal ma ci 5 joueurs. Diao Baldé. Diao Baldé Keita sa waay sa borom sa zone yu rafet yoy non sa yone nekku ci dé bu non non sa yone nekku ci Diao ké ta waaw. waaw Diao Baldé Sadio Mané. Sadio Mané. euh Koulibaly. Kalidou Koulibaly. ki euh nu sax. Idrissa Gana Gueye Idrissa Gana Gueye fee la joge fee la jógee sa waay yow yaa ko jox yow yaa tontu Idrissa Idrissa bokkatul non non Idrissa bokkatul ñëwal ñëwal Edouard Mendy ak euh, numéro 5 waay <laughs> euh, Aliou Cissé tamit kan Aliou Cissé Aliou Cissé man bokkatul bokkatul Saliou Cissé bokkatul ani keneen ñëwal waaw c'est Kara Mbodj Kara Mbodj joué wul Kara Mbodj gëj na équipe nationale non champion d'Afrique laa la wax suñu équipe bi jël coupe bi. waaw kii la xaw ma jëliwu kii nu mu tëdd sax boobu gaan non kii non non non non police dama naan. benn rek moo des. waaw am nga quatre mu des benn. baa ma wax mu am baa ma wax kii nu mu tëdd sax mooy pël. Bama Dieng Bama Dieng. Bama Dieng. Baye Fall Baye Fall sa digganteeg yàlla du yaani Bamba ji. waaw. coo jiwul kon génn nga ci nii. équipe nationale du Sénégal kan nga ci gën a supporté kan mooy sa joueur. kan mooy sama joueur. Diao Baldé Keita. Diao Baldé. Diao Baldé Keita mooy sa joueur. coo jiwul actuellement mi ngi Russie nag sori na de. championnat Russie la dem. yàlla na ko indiwaat ba mu nekk si équipe yu mag yi si kàttanu yàlla suñu waaw. Angleterre Italie Espagne. waaw noonu la parce que joueur Sénégal bu ne fu mu waaye nekk bu nekkee club bu soo yàlla na yàlla def yóbbu si club mag parce que ñun suñuy feere ñun ay doomu Sénégal lañ. Sores Sores boo amoon baat biir CNG lan nga njëkk a génnee ci làmb ji. non CNG ah CNG moom xam nga ñoom moom suñu kilifa lañ te kilifa moom bu jiitoo si néeg bu bu la waxee lii loolu la ana man moom leen chaque jour leen laa wax moom si doyen ka arbitre yi léeg-léeg mbër yu ndaw yi nañ bàyyi ñu bëree jëli leer. na jëli yi di leer. waaw parce que sama premier combat bi ñun ba saako yi jum naa man suma ma teeloon ci bële fa arbitre danaan kaa leen bëriwaat barki alxuraanu karim am na yenn jël yu bëri yéen a ngi koy seetaan si lamb arbitre dañuy joxe victoire loo xam ne jël sax amul da ngay gis mbër dugal recours sax nga nga xam ne Alioune Sèye Junior moo daan Mor Kankang yow seeraan nga làmb ji wante ba mu demee du góorgóor kenn jox ko làmb ji victoire bu nekkee jox ñu victoire kon Baba Ndiaye nu mu teg fees na waroon sible làmb ji waat Baba Ndiaye moom na moom ba mu jógee def moom ba mu jógee dafa maa ngi jégalu parce que moom xam na ni ñàkk na jugoon def nii ne loolu mais c'est un sportif mais loolu mooy un sportif xam nga tey dafa yàgg di bëre di daan di bëre di daan di bëre di daan bëre na ensemble bu tegoo sax jàpp na ni daanul dafa jóg ne ci poteen maa ngi jégalu mais loolu léelu loolu euh, euh, euh, sportivité la waaw ah, na Mor Kang dafa toog tamit loolu jël la man moom leen laa wax mooy boo daanee jël bu leer joxuñu la victoire ñu jox ke victoire yow boo dugalee ba ñu xool analyser xam ne kii la amul baat bi dafa am càq baat bi amul càq da nga war a xool logique def ko loolu mooy normal Sénégal loolu war a doxee lu nekk yoon ñu def lu nekkul yoon ñu jël ko teg ko fële barki alxuraanu karim ba pare may wax mbër yu mën a baanwaale caar rëbës na ñu bëri man daaxuma yóbbu mbooloo te musuma yób delloo ab loxo ticket musul am. jox ay bloc ticket nga delloo ticket musul am gars yi question suivante bi soo amoon baat bi seen lan ngay njëkk yokk loo yokk ci làmb ji ngir mu gën a neex gën a jaar yoon lan ngay yokk ci làmb ji. non làmb ji moom xam nga lan la ñu war a gën a yokku mooy géwal xorom la si làmb mooy xam nga gars yi doon may ay quinze personnes tëggat yi léegi ñu def ko dix moo sonné nañ koy yokku mbër bu ndaw.

footballeur ngay nekk euh, boxeur ngay nekk karatéka ngay nekk mannequin ngay nekk wala waykat ngay nekk lan ngay nekk boo nekkuloon ba. non man su ma moom ah am lu may doon fu jour. joueur football. waaw moom mën nga moom ma dara. ah mais mais nag oh booy booy dégg naa tey dégg naa tey waa parcelle dañoo jóge fële ñëw stade Amadou Barry jàpp équipe Guédiawaye football. sifaay leen sifaay yu métti dégg naa loolu. ñaar ñaar la. xaw ma nee nañu 4 4 4 2 3-2 3-2 mais ah non mais dañ leen fekk si. waaw ah, lu ma fekk si tamit. naan fekk si leen dóor leen loolu ñaaw na. parce que parce que yàgg nañ leen door mais tay ñoo leen door waaw loolu tay lañuy wax. sport la. Hmm. waaw 3-2 moom. si leen domicile nag si fay leen nag bàyyi nag bàyyi nag. loolu garaaw moo loolu. avant combat bi li gars di wax. Sa Thiès wax fi li Diane wax guuy gii eh, eh, Lac de ni mel 2 ñoom ñep dégg na la ñu naan gaay bu ñu ñëwee bu ñu leen jàppee ba bay leen gaay fekk ci leen door leen. ah parce que ñooñu ñooy njiitu géej waaye ñooy kilifa géej waaye ñooñu seen bëgg-bëgg ak seen gëm-gëm lañ doon wax. waa parcelle door nañ leen de. waaw loolu doxalu yàlla suñu borom ànd ñoom seen gëm-gëm tey boo leen tëggaatoon léegi-léegi dañ naan dañuy rey waa parcelle. fekki waa parcelle terrain église fekki leen parcelle jéem a fayu. non bu ñuy dem foofu sax dañuy fekk mooy mooloo kooku. am nañu chance ba ba filmé wu ma su ma ko filmé woon dinaa ko siiwal Sénégal gépp ñëpp jot. biir ñaar bu ñu demee parcelle mooloo day ñëw gars yi dañ duma duma yi met Balla mooy dugal waaw noonu la demee dèjà wax nga dèjà match revanche bu taxawee waa Géejawaay dañu duma waa Parcelles. juróom moo la day fóol Balla Gaye fóol attaquant. yow da ngay man moom naa nekk supporter rek parce man dama bëgg di reetaan quoi mën a man damay féete si hmm. la may supporter de Vani fois nii. parce que yow tey sa morom journaliste su xeeloo woon kenn du la fa jiir. su ma mbokk journaliste yi daaw 3-0 lañ leen dóor heureusement man bokkuma ci man moom gàcce gi bokkuma ci man moom man de billahi bokkuma ci. déedéet déedéet déedéet mais eh, biñ taxawee seen mat yëgaluñ ma ma ne jour si booy mbëri woo ma gain naan ma si naan ma leen. ñu ngi dolli ziar bu baax. dafa melni Baye Fall la jakkat wallahi ndaysan lolay tur yi sax. bi nan la. Abdallah Baye Fall général international lolou mooy tur yi. waaw damay téye micro nii nga koy téye di laajee nii nga koy laajee. ban seen nga ne. Mbacke Fall TV. ak Pexe TV. ak Pexe TV ak Mbaaw FM. Mbaaw FM ak Mbaaw TV tamit maa nga fa. yëpp maa nga fa. yan yan ngay faral di euh, yan yan genre interview ngay faral di def yan émission ngay faral di def. manoon naa yëpp nag waaye sama mbokku Baye Fall ñoo ne ma del ñëw si cant yi. moo tax ma féete woo si cant gi. cant gi ngay géré waaw. man di wax ak sama booy mbëri ku ci bëre daan bu organiser ay cant may woo ma dem couvrir nekk cant ba 4 heures 5 heures du matin loolu am loolu am na ndax dañoo bokk liggéey bi te ñu bokk baag rek ñoo jaxasoo sawaay goj loolu moom ñëpp xam nañ ko waaye nag danga may maye kàddu tuuti ma sant sa waay ji mbër la moo xam ne nii li wolof di wax na xale boo xam ne ni day jàngaraam mënagul dox da koy jàppale ba mën a dox bu mënee dox demal boppam moo si nekk moo tax waa gunaas laay wax su ma waxee waa gunaas nag mooy wax naa waa géej waaye yëpp ñu jàppale sa waay ndax jàppale seen i mbër jàppale affaire mbër léegi affaire koño koñ la affaire de quartier la affaire de quartier la comme nim mu defee demee ba doon nawetaan noonu la def ci mbëri bi te yenn saa damay gis xam ne day génn jàppale bi day des mbër mu ndaw moo laaj jàppale xam nga mbër mag sax li ñu koy fay mën na si jàppale boppam mais mbër mu ndaw moo laaj jàppale waaye ñuy wax autorité yëpp ñu fi nekk ndax autorité géejawaay surtout autorité dañ jàppale seen i rakk niñ jàppale seen i doom seen i jarbaat ah, autorité géejawaay ñëpp dëgg la waaye gën a jege gën a yaay autorité bi njëkk mooy suñ monsieur le maire bu waa goxam xewle na yëkkati somme bu takku jox leen te bañ di leen jox ay vingt mille ay vingt cinq mille ay trente mille yooyu mënul leen dara. loogu ticket deux cent mille boo joxee nit ki vingt mille lu mu koy jëriñ. benn mbana ceeb mbana ceeb gi muy togg mooy moom lay togg moom lay def ci trente mille ak vingt cinq mille kon yooyu am solo li am solo dëgg-dëgg mooy nga volontaire yaag sa koñ te benn deux cent mille wala nga jënd benn bloc jàppale sa mbër ndax bu demee bu toogee bu daanee yow lay njëkk sant ñun ñi si nekkoon di sonn di fanaan këram du ñu ñu sant yow mi xam ne yaa joxe deux cent mille yow lay njëkk a sant kon loolu am na solo bu baax a baax ñu koy jàppale suñu mbër yi xam ne ñoo nekk suñu ko kii nag li ma koy wax làmbang si kanamam làmbang si kanamam doog a door la nag defee di moom daanaka du dara ay faxas la ndax bi la yàlla naree def moom faaw mu teg la ay nopp ba nga yëg ne bëgg naal mu soog laa teg ak victoire ndax xool boo xoolee am ma rek defet moom jur ta wax si mba mbër du fa dem ba mujj boo xoolee je yooyu yëpp ay mbër la moom nag ñoo ngi koy ñaane yàlla kàttanal ko dooleel ko waaw te mbaar ni nga ko fekk tamit am nañ si yaakaar ndax mbaarum sëñ Fallu la kon sëñ Fallu ñoo ngi koy ñaan tamit mbër ni fépp bu ñu dégg mbërum lamb rek ñu dégg ko fa ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax waa jaajëf jàmm ci yow kaddu yi rafet na kaddu yi rafet na kaddu yi rafet na non kaddu yi rafet na kaddu yi rafet na eh, mais mais fi ma yemoon laay continuer eh waa Géejawaay dóor nañ leen bu leen tilimal sama der man eh, reporter yi bañ leen di dóor man bokk ci bu ma kenn dugal duma nañ leen 3 bits à 0 waa buun 100 eh, pour cent yëmbal 100 pour cent buun ñoo leen jàpp si fay leen 3 bits à 0 c'était au stade Amadou Barry bokkuma si bokkuma si licence mbër nga yor wala nga yor carte journal yi man reporter mais mais bokkuma si man invité wuñ ma dañoo taxawal seen match xam may ma tuuti dañoo taxaw dañoo dajee stade ma leen alhamdulilah man xajuma ci gàcce parce que dañoo taxawal seen match woo ñëpp bàyyi ma woo ñu ma jour ji ñu dem Amadou Bari booy sifa leen sifa yu métti booy man mbër yi di ma woo téléphone nan ma si naa li leen def man leen man j'étais à la maison man je ne suis pas sorti donc match boobu man bu ma ci kenn boole du ma nañu journaliste yi 3 000 à 0 mais man bokku ma ci journaliste yëpp ba des man voilà. ah moom si carte journaliste nga yor moom man moom foofu. Mandiaye Mandiaye Mandiaye non non Mandiaye bokku ma. kii xam nga kii footballul mais pourtant da nga koo boole ci géejawaay. c'est pas la même chose waaw. lan nga. reporter journaliste. reporter journaliste ñu ñoroon football. ay jàmbakatu koroon ñoroon football wala. ay jàmbakatu koroon ñoroon football kon c'est. man man ma classé wuñ ma solu ma mayo. yëgaluñ ko classé ko solu mooy ah. mais da nga ko teel a. yow yow amoo xam-xam de yow non yow yow amoo xam-xam non non yow non yow mënoo atte de non non non kii mënul atte. waaw waaw li mu wax arrangé wu ma waaw li nga wax arrangé wu ma léegi dëgg ji nga wax arrangé wu ma point c'est tout dëgg ji nga wax moom arrangé wul waaw léegi dëgg ji nga wax du dëgg c'est tout waaw mais attends mais qu'est-ce que pas joué man suñu ma woowoon ci milieu de bi man man man si daan lañ ma daan woowee boo laajal Alioune Seye eh laajal Alioune Seye junior xoolal Alioune Seye junior laajal Alioune Seye junior kay waaw carte journaliste nga yor man carte licence mbër laa yor géej waa laa dëgg géej waa tey lu ñu ko dóor man nañ maa dóor yow bañ dóoree journaliste yi dóor nañ la mënoo diine sa bopp journaliste parce que boo ñëwee làmb ji carte journaliste nga yoon nga dugg am na merci merci merci merci ma génn foofu sax léegi làmb làmb géejawaay d'une manière générale làmb géejawaay noo ko gisee mi ngi dox wala doxul làmb géejawaay d'une manière générale non géejawaay moom mu ngi dox moom si kat waaw yàlla jëm kanam yàlla gën a jëm kanam parce que espoir yu ñuy ñaan suñuy grand frère ñoom ñëpp ñu yàlla suñu borom mu leen jox combat ñu ngi bëri di daan te yàlla kon ne yi ngeen jëm bala gay 2 fas à Boy Niang numéro 2 combat bu garaaw a ngi noonu parce que am na ñu wax ne bala gay 2 nekkatu fi ñenn ñi ne jeexal na ñenn ñi ne léegi day négocier ay combat Boy Niang 2 bëri ak Sa ñu toll woon ci bunt ténor yi Sa ak Boy Niang dañoo ñëw ba ci buntu bi ku daan dugg ci ténor yi ku daanu delluwaat liggéey Boy Niang daan Sa dugg ci ténor yi léegi Boy Niang war bëri ak bala gay 2 daan na rakk ji bu daanee mag ji way yu day ñaaw léegi combat boobu enjeu yi booy waxuma la nga far de nan nga gisee combat bu bala Gaye 2 nan la war a aborder kombaa bi. waaw leen laa njëkk wax sax. Cas a ngi noonu suñ a la waaw Cas suñu grand la. Cas moom lu ñu ñëwee ba gën a bëgg làmb rek kom ni ñu wax moom Ndiaye moo tax parce que suñuy lañ lu ñu xeebaluñ suñ dara lu ñu xeebal ñu teewal kon ñi amuñ seen fay barke alxuraan karim abu kafe mii tamit amuñu fayam lu ñu. lu bi nga sant gërëm. non dama leen wax rek parce que ñii ñoo tax ñaan man may gën a rey sam bopp ak sama gars yi billaahi wallaahi yaa ngi xale ndaw waroon nañ te du comme ma la waxoon sànq rek wante leen laa moom Balla Gaye de Balla Gaye xam ne da bëri wax de un xam ne da bëri man boo ñaa ba may dugg këram laa gën a tuuti barki alxuraanu kër maanaam ne dafa bëri wax xam na loolu de un lu métti lu mu liggéey ko xeeb non lu mu liggéey da koy xeeb ndax xam ne na booy da bëri wax te cin fonde bi incha allah xam nga fonde moom boo def suuf kenn du ko jëriñu cin fonde am na suuf instant yi mu ngi koy togg wante am na suuf xamu si dara boo ñaaw waaw xajam na xajam na bi xajam na parce que yow waxuma pour le grand sax du ma wax sax ay tafaatin ndax tafaatin man waxuma ko waxam wante ba duggee si la dëgg rek def ko wee Lac de Guiers moom Lac de moom freiné booy la fi nekkee moom moom booy bu dem bañ ne dugg ñu dugg na ci ténor yi boo jaaree ci yoonu Lac de Guiers dalay delloo sa dalay delloo sa place boo jugee segg dal si génn mooy yow lor nga bopp looloy daw dee dakkat boobu foo foo jaar wala demee nag te génn dafa xiif Sa Thiès face à Reug Reug Sa Thiès jogo na lu waxoon naa la kooku moo Reug Reug gën a ñaaw si mbëri yi Reug Reug da ngaa bëri wax yaa gën a ñaaw si mbëri Sa da lay daan la man loolu maa ko wax da koy duma daan duma daan ko si kat Mbaye Tine junior a à Xeeru Ngor Mbaye Tine day daan inshallah rabbi dogay koy daan. day daan non muy ngi mer lu andi ñooy lool la la wax ñoy andi dem diin ñoy def lepp ci kàttanu yalla ngor a am ndam day daan xéru ngor xéru ngor nak da nga japp ci ngir yalla rek combat bi da ngay ni soxu marle day daan sook si kàttanu yalla suñu borom moom tamit ñooy nekk diine yàlla na ko yàlla may ndam ci kaw sook hmm. waaw da nga ni marle day daan sook yalla nako yalla may ndam ci kaw sook mo tax sook beure fuuf man la moo dàq bëre so waaw parce que moom mu ngi lijjante buy bëree day yot day def nii day def nii moom yot boobu na na xam ne saa si loolu la koy daane ci la koy daane si yot boobu muy lijjante moom moom la koy daane Marley ci la koy daane si la koy si kàttanu yàlla vaar am na vaar am na papa booy tamit daa am combat sama papa booy jënd Nandi Fall waaw Nandi Fall jeexal mag la am na ñu wax ne Grand Yoff Nandi Fall moo fa dàq xamul dara papa booy jënd da koy duma da koy daan waaw macha day daan albarka. macha non du albarka de daan na albarka ba pare. Mathia Mbagnick kere, Mbagnick tamit ma ngoy deg wax nan dafa kontaan si Mathia nu mune beure mun xex billahi daa xamul Mathia. Mathia jurom ben at daanul 6 ans daanul non yalla yokk. yalla six jurom ben at daanul ma ngoy koy yalla dem 20 ans. yalla jëm 20 ans wa gis gisna 20 ans bu mu daanu. waaw na yokkaat waxuma la bu si boole yii na yokkaat 20 ans.

yàlla na ko yàlla yërëm parce que heure bi waroon na ko fekk moom mu toog fii anda yàlla na ko yàlla yërëm yàlla fa suuf si kawam di sant waa daral bu baax ndax dañuy sonn si man di sant tamit xarit Mbora mu ngi sonn si man waa Gunaas moom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoom ñëpp laay gërëm parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay abu café maa ngi koy sant di ko gërëm baax waaw abu mi cas maa ngi koy bëgg tamit Baba Ndiaye. Baba Ndiaye bu ko sant Baba Ndiaye man ma koy sant kii sama grand la ñoom samay grand lañ. kii kii mënul atte de kii ni muy atte baaxul. bari ci moo dama leen sant taman su ma sonoon su ma sonoon dama leen jox ñoom su ma sonoon ñoom dama leen jox ñoom ñu wax parce que ñii mënu ma leen waxal non nga may leen ku nekk boo waxee deux minutes maa la ko ñaan léegi ku ne ku nekk cinq secondes ku nekk cinq secondes. waaw léegi man lu may wax sama gars yi yéen maa leen sant gërëm xale yi maa leen di bégee gis naa lu ngeen di daj ci man chaque jour mais bu nekkul làmb ñooy toog fii ñooy añandoo ñooy màggandoo ñooy defandoo lépp kulu ku si am bànneex yàlla na ko yàlla yokk ku si am loo xam ne tey dalay savant la yàlla na ko jël teg ko fële yàlla suñu borom bu dara tëwul lu waay di yóot yàlla na ko yàlla defal si barki ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imaam waaxu pa waaxu mooñ tudd daa génn àdduna yàlla na yàlla yërëm yàlla na foofu suuf oyof si ko am yàlla teeru ko àjjana fii daw si barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax gars yi maa ngi sant di leen gërëm aw ma seen fay su ma leen di gërëm fii du ma fi jógee Bira maa ngi koy sant baax a baax a baax Bira tamit da si sonn waaw di bëggee gars yëpp su ma limee seen tur juum waaw maa leen bëggee ñëpp waaw noonu demee nag waaw jawrin tamit maa ngi koy siyaar baax jo maa ngi koy sant baax maa ngi koy siyaar baax maam Saliou Fall mu ngi si ruq bi daa waroon ñëw maanaam maa ngi koy bëgg baax waaw Nabi Fall waaw. jàmm ci yow sama gars yi l'émission tire à sa fin waaw. masawu coono lu nga ñëw ba fii waaw maa ngi lay masawu coono baax dina ñaanal tawfeex nga dem ba am say cërëb